ñu tricher ko damay bañ ñeneen ñi tricher suñ in bi in ko denc ko ba ci kanam ba ñeneen ñi boucler ñu doog génne parce que li ñuy tricher temps yi dafa bëri trop waaw dafa mel ndax li ñuy bind torop dafa am solo. rënkal ma ko. nañ ko rënkal ma à la une bi. d'accord alors donc jërëjëf maam Khady jëri Fall alors euh, Pam Ndiaye. waaw euh, yaakaar naa mun nañ dugg ci waxtaan dama xamul ndax. Mhm. dañu njëkkee ci biographie kilifa. Mhm. dem nag ci vif du sujet ak euh, maître. Mhm. ou bien. lan lañ war a def noo ko séddalee rek noonu ah noo ko séddalee noonu la gars yi bi ñu xamee ne dañ lay invité ba tey ñi ngi laaj parce que kilifa xam nañ ni kilifa bu kër gi la xam nañ ni kilifa yaanaamaar la xam nañ ne kilifa activiste la bañkat la mais au fat dañuy wax toujours dañu bëgg a découvrir kan mooy kilifa on va nit ku nekk am nga foo juddoo am nga foo jaar mm-hmm. kilifa fan la juddoo ak fan ak jaar-jaaram waaw euh, euh, maa ngi juddoo ci dëkk buñ naan Kaolack ndangaan ci quartier bu ñu naan Kassaville ci ginnaaw marché bu ndaw bi maa ngi juddu foofu ci 1980 de mon nom d'état civil je m'appelle Landing Mbessane Seck Landing Mbessane Seck boobu nekk ki nga xamante ni comme j'ai l'habitude de dire taawu muus la maanaam dama juddu rek nappali suma bopp j'ai tout connu la souffrance dama teel a xam souffrance parce que bi may ñàkk suma papa boobu maa ngi am fukki at ak ñett ca naka noonu yàlla nattuwaat ma ca at ba ca topp ki nga xamante ni moo doon sama taawu yaay bu góor génn àdduna en 2014 alors ma war a nekk suma taawu yaay war a nekk aussi sama borom këru yaay xaw ma ndax ñi dégg olof ñu may mhm. dégg bu baax maanaam lépp li nga xamante ni paa mu ngi ko doon def yore maire bi ak njaboot gi man ma war a taxawee place boobu lépp li nga xamante ni aussi sama taawu yaay bi waroon a jël relève bi yàlla jël ko man tamit ma war a taxawee taxawaay taxawaayu nu relève alors ma war a jouer double rôle waaye yàlla ci mbaaxam ak gëm sa bopp ak tamit fonk waajur wu jigéen man suma yaay moo ma yar lépp lu ma xam ci àdduna moom la lépp lu ma mën ci àdduna moom la doomu yaay laa. Mhm. ba pare mu nekkoon tabarfakalla macha allah yaay boo xamante ni elle était extraordinaire ñu ngi koy ñaanal maa ngi koy fas yéene ñaanal sax le 3 mais bi lay def at ci suuf. Mhm. ndege ni daaw ci weeru koor gi dixième jour bi la génn àdduna. donc le 3 mai bi incha allah la fas yéene duggaat Kaolack pour defal ko wàcce kaamil comme foofu rek la xam. di wax waa Sénégal yëpp ñu ñaanal ko yàlla xare ko àjjana. Mhm. mu nekkoon jigéen joo xamante musul bëgg suñu bët xonk mu teel ma xamal lan mooy àdduna musuma dóor lépp lu ma daan dóoree xam na ni man ay xas laa gën a bañ walla yedd daf ma daan tëj ci néeg di ma wax ne ma doomu nit ku baax day moytu yenn yi nit boo wéetee danga war a gore boo wéttalikoo da nga war a gore daf ma daan wax ni ma am yàlla yàllaay buur ñàkk yàlla yàllaay buur daf ma doon jàngal partage dem ba doon ma wax naan ma alaala bilaaram du dugg àjjana mukk am yàlla jox la toog di xoole mhm. lépp loo am bàyyee ko doomu aadama yi te lépp loo bokk ak say moroom bàyyee leen ko nga dem uti leneen bul ma sëqatoo xëccoo donc yar ma ci ay valeur mais yaa ngi may wax naan bi paa bi di dëddu àdduna yaa ngi am ci fukki at ak ñett fukki at boobu yaa ngi jàng wala moment boobu maa ngi jàng mhm. war a jàng war aussi gere la dépense quotidienne ndax amul lu mu yëngal ci njàng meeg yooyu bu baax a baax a baax parce que aussi liñ naan euh, tëgg jéembe munta ànd ak oq ginnaaw dama daan jàngi su ma jàngi jee ba wàcc daw jubali salin su ma demee salin jéem fa ut journée journalier maanaam yenu saaku xorom wala mat sol ay saaku xorom ñu fay ma deux mille cinq cents bu dee kaaru guddi la ñu fay ma mille et quelque. Mm. parce que su ma wàccaan dama daan dem jéem a ut kaaru 14 heures euh, 20 heures su ma boobu rëccee damay obligé toog foofu mais boobu maire bi xamu ko. des mm. fois elle s'inquiétait parce que danaan jàng rek ba heure bii nii téléphone amul dara amul. Mm. guddi gi lañ may jël suñ ma jëlee guddi gi vingt deux heures ma liggéey ba 6 heures du matin daw gaaw dellu kër ga fekk ko mu toog jaaxle. ma expliquer ko rongoo ñoom tuuru mu ñaanal ma ne ma dénk naa la yàlla mhm. ma dal lu tuuti dawaat dem école war a fay su ma jàng parce que boobu école publique yi aussi mhm. rejeté nañu ma tellement que dama teel a am position teel a am position ba loolu ça m'a coûté école publique yu bari yu ma jaar doonu ma déggoo ak professeurs yi dañ ma daan dàq teel am position ci la dama mus a nekk un éternel incompris mhm. alors loolu may dox ci loolu di dox ci loolu tey mu neex suba mu naqadi ba bi may dem Sonacos di am contrat foofu di fa liggéey par six mois yàlla di ma dimbali ma teel a nekk aussi ma teel a entreprendre lépp lu ma daan dajale jënd ci ay xar wala ma jënd ay ginaar di def élevage ci côté bi bu tabaski jotee ma mën a jënd xaru tabaski yi xottil sama rakk yi ak suma mag yi. kon da nga teel a quitté école bi. ma dama doon jàng nag parce que dama mës a bëgg gëstu. ok bañ naa ko ba bi ma demee ba benn age bi nii dem naa j'ai fexe naa ba dugg université ba fréquenter université. Mm-hmm. et j'ai fait là-bas trois ans. def naa fa trois ans di dem ci amphi di assister cours yi et tout donc euh, mu nekk lu lu compliquer ba 96 bi ñuy créer notre groupe de rap man ak Thiat ci contexte boo xamante ni contexte bu doy waar je me rappelle c'était la grève UNES Union nationale des élèves et étudiants du Sénégal mu nekkoon une grève qui avait duré trois mois bi ñu jógee ci grève boobu ñu ne année bi day blanche wala lu blanche malheureusement ñi nga xamante ni ñoo nekkoon dirigeants yi euh, ñu jaay ñu jaay cause bi ñu retourné waat à l'école alors ci la ñu toog man ak Thiat ñu def brainstorming bi ñu defee brainstorming ñu ne il faut que vraiment lii mu jeex parce que nekk dans un pays euh, euh, boo xamante ni da ngeen di sumb benn affaire dem ba ca digg ba am ñu trahir la cause bu ñu bàyyi bu ñu croiser lee bras di jàpp ni way ay xale lañ 16 ans la ñu am donc balaa ñuy am vingt ans fekk mu trop tard. balaa ñuy ñuy comme fii li ñuy woowee majeur. fii bañ nañ ko ba boo amee 30 ans 35 ans ci lañ lay commencé wooyee jeune fekk ne yaa ngi am 10 ans yaa ngi nekk jeune ca ba ngay am 10 ans on ko connu Thomas Sankara on a connu les lay Guevara et autres alors bi ñu toogee def loolu caat ne ma boy il faut que ñu def dara surtout à Kaolack boobu c'était au temps du maire Abdoulaye Diack yàlla na ko yàlla xare aljana te yéexee ñu euh, grand Moussa mu ngi may wax léegi benn anecdote naan ma bi may ñëw seen kër c'était en 86 87 mu nekkoon le président Fosco lycée Valdiodio njaay mhm. ñu daan ñëw parce que Fosco yi période boobu bu daan am dañuy ñëw pour am le soutien du maire. Mhm. pour mu jàppale leen ci organisation foyer beeg affaire yooyu. donc mu ngi ma koy wax léegi ma ne ko boobu day xam naa maa ngi soog a dal. wala mhm. may def cinquième affaire yooyu. donc euh, Ablaye jaag boobu mu nekk koo xamante ni toute sa politique mu ngi ko defee ci suñu biir kër. il était ami intime avec moom papa ñu dem ba tuddante ay doom et alors donc ñun dañu màgg ci combine ak dilu politique nan lañ koy defee ñu gis comment il se comportait avec les Kaolack avec ses militants avec les avec par exemple li nga xamante ni moom lañ ko dénkoon muy Kaolack certes c'était un maire sociale mais booba temps booy xool Kaolack tey jii bokk ci région yi des ginnaaw booy xool Kaolack tey jii bokk ci région yi nga xamante ni maire bu fa ñëw du leen respecté il l'ont connu sous Diack parce que moom moo yore woon noonu Kaolack certes bon sa réponse était bu ñu ko newaan liggéeyal Kaolack sa réponse était mënuma liggéey Kaolack tant que li nga xamante ni kaw Kaolack nga koy am ci xaalis maa ngi koy bokk ak seen papa yi ci lañ ci laa leen di financé ñuy ngénte wala di ki takk jabar wala wala wala wala c'était ça sa réponse mm-hmm. donc xam nga les politiques moom on toujours été arrogants mm-hmm. alors ñun

di am ay manquements yu mag a mag a mag a mag c'est parce que y a une très mauvaise gestion de la euh, de la municipalité mm-hmm. bu ñu demee ba marché bi nga xamante ni moom la ñuy wooyee marché bi gën a ngand ci Afrique de l'Ouest ak lépp lu muy génne te boobu ba léegi on n'arrive toujours pa ñu am bouche bouche d'incendie boo xamante ni bu marché bi di tàkk mm-hmm. dañ koy fay y vraiment un problème et il une mauvaise gestion de la municipalité mm-hmm. ca naka noonu ci la ñu créer bi ñu waxtaanee ba gis ni on devait vraiment faire quelque chose ci la ñu ne dañuy créer groupe de rap man boobu xaw ma sax luy rap ma ne caat lan mooy rap il m'a expliqué jox ma exemple ci américains yi ma ne ko je ma me retrouve pas ci la ma joxee exemple ci les groupes yi nga xamante ni suñu ay mag lañ ñu ngi fi woon comme P4S comme BMG comme voilà ñuul euh, te rapajo et cetera et cetera mhm. bi ma tegalee seen morceau yi nga dégg ci euh, ay contestation dégg ci ay message dégg ci ay revendication mhm. ma ne ko voilà ñun lii lañu war a def ci jour boobu la ñu créer le groupe ci danse lañu njëkkee woon ak sunu ay frères ñoom ñoo doon danse mhm. donc groupe bi mu ngi tuddoon kër gi on naa maintenu la nom ci naka noonu caat ko moom xam nga dafa musa a nekk waaju muus dafa ma mus jàpp di ma nax bu buggee ma nekk ci benn affaire xam nañu dama bugg ay affaire de jiiteek yooyu mu ne ma léegi buñ bu ñu tuddee kër gi comme ça yow nga tudd kilifa euh, far ba tudd taaw man ma tudd caat alors déjà loolu rek mu commencer ma jox appétit boobu ana Morgan non boobu xamuñ ko sax boobu xamagu leen xamagu leen xamaguñu ko mm-hmm. c'était kilifa taaw caat mm-hmm. landing besaan Farba Seck Diop Omar Cyril Touré Thiat alors ñu def li ñuy wooyee pacte de sang à la vue à la mort dem marché bu ndaw jënd fa tergal baxal ay puso ku ci nekk bënn sa catuwe ah ñu toqal ko ci away ah man ak Thiat li ñu lié du yëfu caaxaan nous avons fait un pacte de sang ok personne n'a le droit de trahir cette cause et personne n'a le droit de trahir son prochain te loolu da ko gëm. dañu ko gëm su sama jabar sax xam na loolu tey jii caat amul kuy taxaw ci àdduna may gis may gis ma lay gis su caat taxawee ñëppay ñàkk. c'est mm. quelqu'un boo xamante ni illa a beaucoup fait pour moi. Mm-hmm. c'est quelqu'un boo xamante ni c'est un grand homme te doo ko gis doo ko dégg du ko doxee. Mm-hmm. c'est quelque boo xamante ni il est unique. intégrité. bi nekk ci moom gisuma ko fii ci Sénégal ci nit c'est un homme mais extraordinaire parce que on a eu à tra ba nii nii nii rek ma maa ko ma ma maa ko wàcce mu jël taxi continuer parce que dama doon tardé fañ jógee lañ doon dox dugg na fii génn fii lépp ci Sénégal la est-ce qu'il y yoo xam ne mës nañ tenté pour féewale leen mais bien sûr mais bien sûr Ablaye par exemple bi ñu ko commencé di sonal il avait tenté ça jéem a yóbbu ma tukki way gis nga kii mu ngi topp caat le rouge lañ ko doon wooyee tellement ak xonkaay bi mm-hmm. ki nga xamante ni voilà xamul lu dul sànni xeer kenn xamul lan la dugg na fii ak xonkaayam bi léegi ce qu'on va faire mooy nañ ma wutal bourse ma génn Sénégal dem en France <laughs> mais c'était peine perdue mm-hmm. parce que xam nañ lu ñu lii te xam nañu fi ñu jëm mm-hmm. bi ñu commencé teg groupe bi li ñu njëkk a commencé mooy dénoncer et quand on a commencé de dénoncer ci la tenté loolu parce que xam nga avec les politiques bu ñu ñëwee li ñuy njëkk indi c'est la carotte boo bañee lekk bu ñu dellusiwaatee il amène il vient avec le bâton bi ñu indee carotte bi quand on a refusé de manger il revient avec le bâton ci la tartare yi commencé on a connu l'empr euh, notre premier emprisonnement sous Diack on venait juste d'avoir 17 ans on était encore mineur. indi woon loolu. li ko indi woon mooy que ni euh, def nañu ay morso morso boo xamante ni mu ngi ci doon gros village gros village on présentait Kaolack comme un gros village. Mm-hmm. parce que woy Kaolack gar bi fonctionné wul Kaolack amuñu service d'hygiène service d'hygiène bi matuñu sax une dizaine agence agent yi donc ñooñu mënuñu vraiment veiller sur l'hygiène de la ville. sapeur pompier boo leen woowee lakk balaa ñoo yegg si sa kër lakk ba jeex tàkk. police bi euh, boo fa yóbboo sa sàcc yow yaa koy indil sax lekk. tu vois un peu sa gestion aussi ni mu doon comporté woo comportement bi mu amoon ak militants yi ak sa politique. saafara yi ñu daan jël di ko tuur ci satado Kaolack yi. donc politiciens yàgg nañu ak xonjom ak fétiche ñi may wax ni ça date pas d'aujourd'hui. saafara yi ñu daan tóor ci satadoo Kaolack bi mu traversé ci robinet yi ñëpp naan ko dañ naan nemm dañ naan tekk ci ay waawam rek la ñuy wéy on a ñëpp xam nañ ni les socialistes ils ont quand même duré sur le pouvoir mm. yàgg nañu fi te loolu yëpp li ko les sénégalais dañu mës a nekk bañkat mais politique yi dañ doon am fu ñu leen doon jaar ci saayir ak ci baatin te loolu ba léegi dañu fi ndax xam nañ ni tey jii ki ñu géré dafa mystique comme pas possible mais mystique boo gis euh, canot boo gis rek ku na ko mën. Hmm. waaw lu dul dëgg du yàgg te day toj. alors bi ñu empris euh, bi ñu defee morceau boobu dénoncé. fu ngeen defee morceau bi. morceau bi ñu ngi ko enregistré ak Kaolack ci suñu benn euh, animateur bu nekkoon foofu suñu benn grand bu tudd Jibi Gueye. ok on avait payé 1500 à l'époque te 1500 yi même pour ñu am ko il a fallu ñu organiser ay match gagne the morning. 300 mhm. ak beneen équipe ñu teg 300. ñu gañe mhm. ñu jël 600 yi de mise waat ak beneen équipe gañe muy 1200 ñu mottali ko dugg ci koñ bi ket fii juróom fii fukki dërëm ba mu mët 1500 ñu daw defari maquette bi. Mhm. bi ñu defaree maquette bi génne morceau bi affaire bi nag saa ça a commencé à faire du tollé déranger. Mhm. bi ñuy déranger nag xam nga ñoom boo leen déranger rek moom gisatuñ ni kii mag papa ma doon ànd seen yoon newu ci. boo taxawee pour di menacer seen intéret il te massacre. lijjantiwuñu kii tuye. alors mu metti lool nekk ay moment yu dur yu tara tara tar bi ñu euh, bi ñu defee 72 euh, heures garde à vue ñu yóbbu ñu ci mag bu Kaolack on a fait là-bas une semaine bi ñu jógee foofu ñu génne ñu par négociation xamuñu ba léegi waxuñu sax lan la ñuy toppee mais de toute façon dañu defoon sous contrôle judiciaire ñoo ko ci ci ci laa ko njëkk a xamee di may am 17 ans la xam lan mooy su contrôle judiciaire mmh. on devait être présent chaque 15 jours au tribunal de Kaolack pour di signer di wane ni ñun ñu ngi fi dawuñu tu vois mhm. ba pare ñu ñu ñu censuré ñu ne du ñu prester ci seenu Kaolack yi au-delà de tout ça euh, police on était tout le temps recherché par la police on désertait suñu kër yi dañ doon déserté suñu kër yi pendant des semaines di dem ay Kabatoki di dem ay Sibassor di fa bëtu wala ay Sing Sing donc dund nañ loolu yëpp ba keroog bi ñuy si fippu di jouer benn concert euh, daara ji moo doon ñëw Kaolack ñu fippu jouer premier partie. Mhm. mais ce jour-là c'était vraiment mooy loolu alors ñoom tamit préparer nañ seen coup ñu yebal ay samba booy ñu ñëw ñëw rek euh, intercepté ñu waxtaan. di ñëw apprécier ay producteurs lañ naña ñi loolu da ngay parce que doo gis lu dul produire album mhm. ci loolu lañ ñu meebee bi ñuy ñibbi ñu ne donc mën nañ leen sànniwaale ñun on est véhiculé mhm. ah ñun tam ñu ne lii c'est une aubaine mhm. on va sauter là-dessus ñu dugg ci bi ñu duggee gars yi di dem ba fi ñu war a jàddee pour sànni ñu ñu gis ñuy continuer ah bi ñu leen ne mais non ñun fii fii baax na ñu ne non dañu bëgg a def euh, euh, tour bi xamaale Kaolack comme dañuy war a dem Kolda dañuy continuer on est en mission bi ñu demee ba jub saam ba gars yi jàdd angle espe rek bomb oto bi. Hmm? ah oui ñu jékki-jékki gis suñu bopp ci benn garage bu mag a mag a mag ils nous ont déshabillés di ñu roose ay ndox di ñu tabasser pendant une heure de temps amul fu ñu dóorul bi ñu génnee ci loolu ñu lebaat ñu ci oto sànniwaat ñu ci kaw taliba bi ñu paree loolu hospitalisé nañu ku nekk une semaine euh, ku nekk un mois. di wàccu ay deret ak yu kenn xamul alors bi ñu jógee ci loolu nag ça nous a vraiment forgé mhm. ci la ñu commencé même di def yaramu neen sa fait moo indi histoire yaramu neen bi moo indi histoire yaramu neen bi mhm. moo indi histoire délabré bi afro yeeg affaire yooyu tout avait aussi une explication kër gi est un groupe boo xamante ni c'est un concept et une philosophie on a toujours de euh, voulu être démarqué de tous les autres groupes avec aussi le verbe suñu ABCD dafa nekkoon ba def ba tey jii nii nii nii looloo tax ñun duñu ñu suñu vin fii ba suba ci ginnaaw ngoon liñ leen wax mooy ñun li ñu commencé xam nañu lan la te boobu ba léegi nit ñi ngeen dégg ñuy changé mais ñun fi ñu taxawoon ñu fa taxaw suñu constance li ñuy wax mooy muus mënuloo ko wooyee leneen lu dul muus te bu jëf rafetee rek nettali bu na rafet. li ñuy wax du lu ñuy inventé lu ñuy gis la nous sommes le reflet de la société. li ce que les politiques font ci sur le dos des populations moom la ñuy génnaat di ko wax te ñëpp xam nañ ni li politique yi di def sur le dos des populations du lenn lu dul ñaawteef. du lenn lu dul naqaral leen. du lenn lu dul tooxal leen du lenn lu dul di salfaañe suñu ay droit du lenn lu dul di sàcc le contribuable sénégalais bi nga xamante ni ñépp ñoo ko cotiser te la cotisation date depuis nos grands-parents ba léegi tey jii ñu koy confier un groupuscule de personnes ñu jàpp ko di ko sàcc di ko def nu leen neexee mais c'est ce qu'on dénonce et c'est aujourd'hui loolu moo tax lépp loo xamante ni ñu ñu koy taxé wala lu tax ñu nekk ay incompris c'est à cause de ça du leneen. seen montre yi nga xam ne du ngeen ko takk fii seen doole ngeen koy takk. lu waaw montre bi li mu doon expliquer mooy que ni on était vraiment en re... Euh, on est en retard et pour ne euh, pour, pour vraiment pour boo buggee vraiment attirer l'attention de la personne. da ngay def loo xamante ni ça sort de de de de de ni ñu koy waxee de de la convention. mm ñëpp xam nañ ni montre fii lañ koy takk. Mm-hmm. donc boo ko takkee ci avant bras. Mm-hmm. automatiquement euh, tu, euh, tu tu vas capter les attentions. Mm-hmm. te montre du lenn lu dul xoolukaayu heure. l'Afrique est en retard. le Sénégal et en retard et Kaolack et en retard donc la montre c'était pour rappel l'heure daw la bàyyi ñu ci ñu fi mais mun nañ ko dabi. ok ok d'accord. ok uh-huh. alors man dafa am ñaari mbir yoo xamante ne bëggoon naa mu leer euh, ci seen jaar-jaar. Euh, bi si jiitu mooy euh, yaa ngi doon wax léegi pacte de sang bi nga xamante ne defoon ngeen ko au début mais gis nañ ni a un moment donné ki nga xamante ni moom mooy euh, yow caat ak keneen ki Farba gis nañ a un moment donné moom dafa dafa dafa génn waa waaw par la suite gis nañu aussi seen relation ak ki nga xam ne moom mooy Mollah Morgan mm-hmm. ñaar ñooñu laa bëggoon xam lan moo waral